tey bisu dimanche bi mooy doon tey bisu élection bi ñu koy jàppit idi jàpp ko kenn jàpp ko ki nga xam ne moo ko jàpp mooy le préfet su préfet moo ko jàpp noo def assemblée générale ñu jox nu mandaam juróomi at mandaam jeex nu def assemblée générale leeral askan wi li nga xam moom la ñu dénkoon bi nu ci biir leeral bi préfet jóg wax ak askan wi opposition bi taxaw contesté wuñ serool ci bilan bi dara lañ ci contesté wut tey la yoon defoon lu leen ci naqari foofu lañ ko waroon a kaase mais kaase wu dara naqari woon ci bilan bi contesté wuñ ko ñoom ay bu faloo waatee dana no rey lii loolu lañ foo wax waaye contesté wuñ bilan bi fiise ñuy wax ne moom lañ contesté moom lañ wax ba tey sous préfet dàq élection yi fiise bi nun ko bëggee rek mën na leen caa fekk ndax nun fi ñu jëm ñeme nan ñoom dañ ne euh, moo waaw yéen ngeen xam nga loolu bi nga xamee ne secrétaire bi mi ngi def euh, rapport dafa am ay nouveau adra nouveau adra yi nga xaye ñoom moo leen tiital matul sax cinquante personnes nouveau adra yi leen tiital matul sax cinquante personnes ba ñuy wax ay deux cent personnes xëy na nag secrétaire bi mën na jum ci foot faraamam fi mu bind tax mu wax loolu waaye li ma mën a xam mooy lu leer moom lañ fa yóbbu nun te lu ci lu leer la ñuy def xar wi nu am nag te di ko jooy askan wépp mooy sous-préfet ndax dafa taxaw woote ajuma ñëw ñu dem ajuma à trois heures mu taxaw wax àdduna bépp dégg mu ne na ngeen leen wóor ne obligatoire la élection yi dimanche nu woo suñu nit ñee ngi jóge Tamba ñi jóge Ziguinchor ñi jóge Dakar fu ne nit jóge fa ñëw fanaan ci dëkk bi nu toog ba biig dernier moment mu ne foofu fo ne ko ndax fiise bi lii fiise xanaa moom organisé wu sa élection présidentielle organisé na ko bi xanaa war na xam lan moo war a nekk ci roolu élection su fekkee diire bi dafa xat war warul woon a woote ajjuma ne dañuy dem élection dimanche waru ko woon dem. dañu ko woon projet bi waxoon na respecté wu la loi bi waxuñu ko ci assemblée non waxuñu ko. waxuñu ko gannaaw bi leen jóg barki biig bi ne élection day am ci lañ jóg doole ne fiise bi xamuñu nu fiise bi demee ñoom ñoo taxawoon ne kenn du dem élection ci carte 2019 président ne leen d' accord naa 2018 bi ngeen wax ñu fekk leen ci ñu dem ci élection président régulul bañ ne 2019 duñ ci dem lay nem d' accord naa ñu dàkkoon seen 60 000 ndax bëgg a wote nañ muñ nañ muñ ñu dem ci 2018 bi ñu d' ci léegi préfet bi muy wax nee na permis yu bees yi ak ancien permis yi ne ci carte yi loolu moo ko jaaxal loolu dana ko jaaxal ndax ñoom ñoo fi indi permis yu bees ñun andiwuñ ko fi 2010 2018 bi nga xamante ni noo ngi relew suñu carte permis mémorisé amut bi permis mémorisé amee nag léegi ñu renouvelé ci am ñoo xam ne renouvelé ci loolu moo indi problème nee na loolu moo indi problème na ubbi fiise nu dem bindu woote dóor dóor leen ñu daanu na ubbi fiise bi nun ñëpp ñu dem bindu dóor leen ñu daanu nun ñeme na ci ne nun danoo am suñ kilifa nag noo ngi noo ngi xaar lépp lu suñ kilifa rek loolu ànd nañ waaye préfet moom lii muy wax moom dëkkorul benn suu préfet rek mooy préfet benn te des na laaj nañu suñ fare élection bañ jox ko ñu jënd suñuy nag jënd suñu ceeb démb ndax ku ne suba la élection nga nga war nga jiite mbooloo xanaa da nga préparé njaboot gi bu ñëwee luñ lekk ak gan ñu luñ lekk. candidat yi dañu woon yi ne te benn candidat sax actuellement fii may waxee benn candidat Idi Ka moo fi am ñoom déposé wuñ caution déposé wuñ dara ay këyit leen déposé ñu leen kuy déposé da ngay joxe deux cent mille caution defuñu ci dara te leeral nañ askan wépp ne ñoom coalition lañ def kon ñoom benn candidat lañ yaakaaragul lu tax benn candidat boobu bu fekkente ne dañoo ragal nan wax nun dañoo bëgg lu ni dem mu raisonnable ñu teg yëf yi ci yoon ngeen baal ma xaw salaam jërëjëf. Abdou Aziz man maay porte parole groupement